jërëjëf mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu ñu dellu ci waxtaanu làmb ñu dellu ci pénc mi xam naa ni bu waxtaanu làmb xel yi dinañu dem fu am solo foo xamante ni xam ngeen ni làmb dafay dund te bokk na ci li xale yi gën di fowe ci réew mi ba tax na xam ngeen ni week-end bi yëpp ay làmb la rawati nag altine altine Pape Abdou Fall moo nu yóbbu stade Iba Mar Diop dajale ay xale kenn ki ngeen ràññeeku bu baax muy def jéego bu am solo ci wàllu bëre te am na nañu yaakaar ni dina war a mën a bokk ci ñi défendre couleuru Pikine ndaxte ni mu tàmbalee dal na xel dal xel googu nag moo tax Pape Abdou Fall jël ko muy Tyson numéro 2 mu war a bu Tyson numéro 2 mi ngi nekk ci Tay Shinga bu Eumeu Sène mi mu bokkal écurie moom ak Fifty Cent moom mu ngi nekk ci écurie Mor Fadam di ñaari xale yoo xamante ni ñoomit seen bëre yaakaar naa ni muy fifti gis na nu combat bi mujjee bëre dëgg la moom ak Baye Pël la woon defet la ci jële waaye nag ndaanaan la ci wàllu bëre jet li bu sàkku xam-xam ànd ak Birahim Ndiaye dina fa bëre ak Nandi Fall bu Grand Yoff armée yëmbal benn baraak dina fa bëre ak Zos 3 bu centre Jacques Chirac bokk na ci Tafaaleer Bawal Mbooloo dina fa bëre ak Kilo Mburu kilo mburu nekk ci écurie Tay bokk na ci xaritu yaayam bu écurie Fallay Balde ak dubul dubul mi ngi nekk ci écurie bu yoof moom laay daan faral di wax dombul mu ne du dombul dubul lu tudd kon yaakaar naa ni ci kanam dinañu wax lan mooy dubul ndaxte am na lu ma ci wax waaye na ko wax téléspectateur yëpp dégg ko mbokk yi kon loolu lañu fas yéenee waxtaane tey et ñi niy jëkk a toog waxtaan ak ñoom nag mooy dubul ak xaritu yaayam ñoom ñaar lañu bëgg waxtaanal waaye balaa ñoo sóobu ci waxtaan bi ñu sant yàlla xamal leen ni wa làmb boobu altine la xam ngeen ni altine fête la ah lundi de Pentecôte la mu di bis boo xamante ni bisu fête la sunu mbokk chrétiens yi di ko feete mu doon ñoo xamante ni ñun ak ñoom yaakaar naa ni benn lañu bokk ndey bokk baay bokk sunum réew tey ñuy am yaakaar bu baax nag ni daal bu soobee yàlla ñaan yëpp dina tasaaroo ci biir Sénégal muy jàmmi réew mi kon Pape Abdou Fall moo taxawal boobu komba gis ngeen bi saison bi ubbeek léegi combat yi muy tëgg yëpp mu doon combat yoo xam ne dinay Pape Abdou Fall dinay indi xale bu nu musul gis ngir jàppale ko dinay indi xale yoo xam ne seen bëre bariwul ngir jàppale leen tey jii nag indi na xale boo xamante ni bëgg na koo feeñal ndax am na gis nañ ko waaye bëgg na ko feeñal mu génn. muy premier combat grand combat mu bëri ko muy Tyson deux mu ciy bëri Fifty Cent Pape Abdou Fall ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyu mbokk téléspectateur laata ñuy dalal sunu ñaari mbër yi. Euh, jërëjëf El Hadj Bekay euh, merci euh, maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm borom kër gi PDG El Hadj Ndiaye di gërëm personnelu 2STV bi yëpp di gërëm it staffu Pape Abdou Fall production commencé ko ci Henri Lahat ak ñëpp ñi nga xam ni ñooy liggéey ci. Paf Production comme ni nga ko waxee ñun ñu ngi ci suñu quatrième sortie quatrième journée Paf Production te journée yi nga xam ne organisé nañ ko yëpp gis nga ni mu demee ba combat bu mujj bi diggante Mambal la Papis Général defe naa ni Sénégal gépp ñu ngi fàttaliku bis boobu léegi nag ñu jëm ci comme ni nga ko waxee le 28 mai muy bis boo xam ni fête la fii ci Sénégal Euh, feetu chrétien yi la ñu ni kon ñun ci la ñuy def suñu quatrième soxti quatrième sortie bi nag euh, comme ni nga ko waxee dañ ciy def journée boo xam ni. Mhm. ay espoir lañ ñoo xam ni duñu ay champion lañ sax parce que Tyson 2 gis ngeen ko. Oh. Euh, macha allah gis ngeen li mu def ci làmb. Mhm. ba ci làmb. defe naa ni Yékini Balla Gaye bi. paase rek lam fa def rëy na jaloore gu rëy. moog Boy Ngaay moog Boy Ngaay gis ngeen ni mu def Boy Ngaay. Mm-hmm. ñëwal bëtiku mu war a dajeeg 50 cent gis nga 50 cent euh, ni mu def Zarko. Mm-hmm. donc euh, Baypal moo ko mujj daan Jet Li ay Nandi Fall armée ñëpp xam nañ ko Zos 3. Zos 3 Tafa ah. kilo mburu mm-hmm. xaritu yaayam ak dumbul kon muy journée boo xam ne ca dëgg-dëgg euh, journée bu nice lay doon ñu wëlbati nag jagleel ko suñu ay sponsor bi journée bi daal sponsor yi nga ñooy euh, ñooy maa la wax loolu sponsor yi ñooy parrain yi particulièrement wari bi nga xam ni transfert d'argent la ay doomu sénégalais ñoo ko moom di liggéey pour seen dëkk jëm kanam ñoo jël wari tey porté ko ba nga xam ni tey bépp sénégalais bu bëgg a yónnee xaalis doo am benn jafe-jafe te dinañ ci jot à temps kon moom mooy porte journée bi ñu tuddee ko trophée Wari. waaye du Wari rek am na Jojo Meuble ak euh, Jojo Electro nga xam ni ay sénégalais lañ ñoo xam ni bitim réew la ñu nekkoon bëgg seen dëkk wëlbatikuwaat ñëw investir ci seen dëkk ñu wëlbatikuwaat am seen autozone muy it ay xale sénégalais yoo xam ni bitim réew la ñu nekkoon wëlbatiku xalaataat. ci avenir u Sénégal xalaat li nga xam ne Sénégal soxla nañu ko muy pièce automobile ñoom it ñu wulbatiku investiraat fii muy seen autozone ñoo nekk ci VDN bi mhm. kon ñooñu tey ñoo wëlbatiku ànd ak Pape Abdou Fall pour que ñu jéem a taxawal bis bi mhm. duma fàtte nag sama sponsor yi nga xam ne amoon naa leen mhm. muy aussi bel ndox mi nga xam ni ndox la moo xam ne Sénégal yëpp. sell sell set na sell te baax na ci njaboot ak filtre aqua. Mhm. Euh, port autonome ak ñi nga xam ne ñëpp jàppale nañu Pape Abdou Fall production ci dëgg-dëgg maa ngi leen di gërëm di leen sant mais bis bii daal dama ko bëgg a delloo njukkal vraiment samay sponsor ndax am na nu njariñ ci làmb ji ndaxte bu dul ñoom làmb du baax. mais El Hadj mhm. euh, làmb tey boo amulee ku la dimbali. Mhm. comme ni ma déggee démb xaadim di ko wax ci benn rajo. ay jafe-jafe yu rëy la. làmb du compte Pape Abdou Fall du poste Pape Abdou Fall. Mm. sponsor mooy fay mbër. mooy fay mbër tey jii nii képp benn promoteur mënu la ni bu ci yàgg jël ci poosam di di fay mbër ci kanam tuuti sa njaboot danañu la woolu ab billet daal fayatul mbër. elage lamb ji day fees ba nga gis stade bi fees dell. la ngay jaay mënta fay sax. benn mbër benn mbër bi. benn mbër bi jërëjëf Pape Abdou Fall kon mbokk yi ñaari mbër yi ni jëkk euh, dalal moo di xaritu yaayam écurie Fallaye Balde la nekk ak dombul dom dumbul wala dombul wala dubul. dubul non nan la. dubul luy dubul. ursu urs ursu mel na. Mhm. moom ci olof mooy dubul. Mhm. boo yow da nga yow moom mooy mooy dubul xaritu yaayam a ngi nii ah dubul mi ngi nekk yoof xaritu yaayam nekk ci falay bal xaritu yaayam mais yow yow yow yi nga yore mooy yan yow it. lii rameau la. luy rameau. lii ba Jésus di dugg si Jérusalem moom lañ ko doon accueillir. Jésus. waaw. <laughs> yéen yàlla Eesa ba mu dugg moom lañ ko doon accueillir. ah bon. waaw léegi yow kon moom ngay moom ngay. accueillir moom laay accueillir dumbul quoi. ah bon waaw na ko dalal ak jàmm. Ah. Ah. benn la rek. Ah. waaw. dëbul ñu bàyyi la nga nuyoo ah waxtaan ak Sénégal. ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si interview. defal ni ngay jàppalees bi de trop. sant suñu ñaari waajur. ci <laughs> talaata. Ah, waaw di ñaanal suñu sëriñ Cheikh sa Diouf bu sëñ Fallou son bu yàlla fi yàgg te wér. di waajal suñu cant gi bu baax. Mhm. béykat yi évité nañu si yàpp Abdou Fall. waay le 30 à le 2 première. waa bu soobee yàlla. di sant ñi jàppale ñëpp. di mhm. sant waa Yoff gépp. Mhm. ndaxte amuñu lu dul Yoff. di sant waa Cikki di leen wax ñu jàpp si combat bi tund jandeer bi yëpp di leen wax ñu jàpp si combat bu baax. loo wax si sa waay wakaam yoof gépp kii loo ci wax. xaritu yaayam la de. xaritu yaayam amul lu waxam moom làmbaa ñu boole. Mhm. yaakaar naa ne instant bi luñ fiy wax amatu fi. yow tax ndax jour bi ñëw na ba pare. ah kii nii la léegi moom nee na day dem feetu ji bu jógee. foofu ñëw daan la moom. loolu waxi lii la nii rek. Mm. li nekk suma ginnaaw bari lan moo nekk sa gànnaaw. te bu soobee suñu borom kii dama koy daan jëlee bu rëy. bilaay walaay. yow ñaata combat nga bëreekum. am naa deux combats. ñaata victoire. benn victoire benn défaite benn défaite. te boo seetaanaatee suma deuxième combat di nga xam ne li ma daan du ki ma doon bëreet. kan moo la daan. Boy Faye. Boy Faye mooy la nekk. lan la. Pikine la nekk écurie Bathie. waaw lu tax ni këll du ki doon bëreel moo la daan. seetaanal combat bi. noo wax moom nga dugaloon top 5. waaw seetaan ko. yow lan dugaloon top 5 mbot mi. mu ngook mbotu colal bi. mbotu colal bi xeex eh, suma adversaire moo waral mu daan. ma ah, waaw yaa bëri woon mais bu soobee suñu borom kii dinaa ko daan jële bu rëy. Ah? jële bu rëy di wax ne. kii dàq la bot waa jooju est-ce que. <laughs> may wax biram ñi nga. Mhm. mu jàppale ñu te yàlla tax. Mhm. en attendant mu jëndal ñaari ñaari bolo gi billet. gars yi seen xel mën a dal. waaw ndax am nañ six oto mu ngi taxaw di ñu xaar. te bii rek a leen manqué. billet moo ñu manqué Birame ñu ngi lay ñaan. kon yaakaar naa ne loolu Birame Birame dégg na ko. ba jël six oto di bu baax. waaw ñu ngi ñëwaat ñu ngi ñëwaat ci yow. xaritu yaayam nuyu nañ la. waaw asalaamaaleykum Bécaye. mais pourquoi nga tuddee sa bopp xaritu yaayam mais ñëpp seen xaritu yaay la wala. ah dëgg la non mais xam nga rek man sama yaay sama xarit la quoi après nekk sama sëriñ. mooy sa sëriñ. waaw mhm. comme que tigo bi dem na ba nga xam ne ñëpp a ngi kaas yeneen promoteurs yi tamit nanguwuñu tëgg ndax da leen déranger uh-huh. di santaale Pape Fall ndax moom mi nangu tëgg sans sóoraale loolu maa ngi uh-huh. koy sant di ko gërëm uh-huh. waaw mais léegi xaritu yaayam la xaritu yaayam la quoi waaw xaritu yaayam waa xam nga tamit dafa xaw a doy waar doon mbër jël sa bopp tudde ko benn sponsor boo tuddee sa bopp benn Tigo par exemple kay sponsor yi làmb ja di orange wala nga tuddee sa bopp orange Sonatel kay sponsorise làmb ji di Tigo wala Expresso dafa xaw a doy waar. loolu tamit mais Bécaye xama ret parfois ah, nit mooy jël tur waaw waaw nit mooy jël tur ret tuddee la ko du lool du loo xam ne nga koy tuddee sa bopp mhm. man ba may tuddee ba may tudd Tigo yàlla xam ne boobu Tigo siwooguloon dan ma doon wax da nga bëggul yomb rek Tigo bi ñëw ñu boole ko mais man séentuwuma ci woon ay kii ay publicité tur la buñ ma tudd léegi loo léegi Pape Abdou avant ñu ñëwaat Pape Abdou loolu euh, day démontrer un peu manque de euh, d'organisation et de professionnalisme informel bi nga xam ni moo nekk ci yi nga xam ni moom moo leen yor mhm. parce que tey ki nga xam ni moo dem ba tuddee ko Tigo waa kooku il a quelque chose derrière derrière vraiment ça. ce nom là ouais. donc moom mi nga xam ne xamul dara mhm. donc il porte le nom sans souci ouais. donc et da koy porter préjudice donc mais boo xoolee lamb bi yëpp man maa ko tëgg ah. man damay ne Tigo Orange ak yooyu yëpp man euh, maa ngi dund Pape Abdou Fall euh, demeure donc euh, mais nag xaritu yaayam moom waaw xaritu yaayam moom ca dëgg-dëgg tur bu neex tur bu neex la xaritu yaayam loo wax ci ci ci salaamaaleykum ginnaaw ba ma nuyee ñëpp toog fii nuyu nuyu Sénégal bi yëpp di nuyu sama adversaire Dumbul. Euh, maa ngi sant Sénégal yëpp Père Bécaye. Mhm. combat bi moom dama dam sama xol dafa seet si waa Pikine ndax waa Pikine dama ñëw ne leen Pape Abdou Fall nee na man aw ma supporter te Pape Abdou Fall li mu wax dëgg la ndax erreur bi li tax mu ne aw ma supporter samay supporter bu ñëwee presque xaaj place amateur la ñuy toogee wala bu ñëwee tasaaroo. loolu moom mooy waaw mais man am naa supporter te côté boobu maa ngi bàyyi waa Pikine ñu tontu ko ci. pour mun a ñëw feesale saar ñu xam ne man am naa supporter waaw léegi nga ne sa waay ji na sama adversaire moom wax dëgg yàlla aw ma lu ma koy wax moom neena dina ma daan waaw jël moom yàllaa ko yor bu fekkee défaite bi ci man la gën mhm. yàlla na ma ko yàlla jox bu fekkee victoire bi ci moom la gën yàlla na ko yàlla jox yàlla moom mooy may mhm. man ci loxo yàlla kii lépp mais mais père man dafa am ñoo xam ne. Ah. ñoom ñoo tax ma may gën a. mais yow boo boo lundi xanaa doo dem ci feet bi. bon damay dem Popenguine ñëw. damay dem Popenguine Popenguine laay dem. waaw noo daan ba Popenguine ma nekk foofu. jox ma la ma koy daane ma ñëw daan ñëw daan ko waaw. xam na li ma ko bu baax. Ah, di per per di ah. profité di wax waa Gazel ñu ñu def mobilisation xam ñëw per per. Euh, Abdou Fall Abdou Fall li muy wax xool ñu ñu rusloo ko si ndax xam nga man. Pikine laa dëkk nekk Gazel waaw. waruma rafle supporter quoi. yow njaago nga wala. waaw njaago la njaago waaw njaago du jeex. du xam nga lépp la xaw na. xaw na noo mën a de. waaw waaw loolu ah? dëgg la waaw Ah. xale yi mag ñi waaw lébu yi ñooy njaago olof yi waaw dañoo bëri dagar te njaago kon moytul sa bopp <laughs> ma daan booy bi jël ki day ñëw ma toogal ko kaldu njaago defal ko ci bisaab mu lekk rek ñu lekk waaw loolu dara waaw di woo waa Pikine nag xam nga di woo waa Pikine waa Casamance waa mhm. Guinée mhm. waa Foundiougne man séeréer Foundiougne sama côté yaay damaa rax Foundiougne ba ñëw rax Joola waa Casamance waa Foundiougne waa Pikine Gazel yëpp waa Angar waa ANCAR. waa ANCAR xam nga waa ANCAR. ANCAR même ñu ngi pare tabala yi Pape Abdou Fall. kenn du ñëw billaay combat bi leneen ngay gis waa ANCAR a ngi pare tabala yi. ñoom ñëpp kenn du balaa ñëw sama daal yow. baax na jërëjëf ah danaa ci wax benn gi balaa ñëw dem éviter la si cant gi. Ah, ah, dumbul jërëjëf laa. dumbul ah, yow ak euh, xaritu yaayam dafa am benn phénomène boo xam ni dafa commencé ci làmb. mooy mbër mu bëree ba pare. ànd ak ay supporters ak say supporters yéen ngi yàq làmb ji. mais sawar naa cee tontu nga baal ma doguma la Euh, combat sama combat ma Sonatel. Mm. per Bekaay billaahi wóor na yaa man du ma yàq làmb dañoo bëree fa ñu bëgg a génn ma xaarloo leen fa barki yàlla waa Sonatel ay kubéeri cin lan yoroon <laughs> leen xaar si buntu ba sama rakk ma bokkal ndey ak baay ba ma sama oto di génn ñu koy dóor kubéeri cin sama kanam ñoom seen groupe ñu xaar leen foofu waaw xam nga tamit loolu yaakaar naa Pape Abdou ci beneen loolu dina dina dina dina leen ko régler léegi léegi damay dem ak Babacar le temps ñu jël yeneen deux lutteurs muy Tafa Leer ak Kilo Mburu mooy combat bu njëkk bi. waaw diggante dugub ak xaritu yaayam. ñoom ñaar ñooy bëri grand combat Babacar ñu seetaan benn élément ci ñaari mbër yi dellu si waat ci plateau bi. tibb na moom ak Boy Diop la dafa bu mujj bi dafa juub dafa leer Boy Diop Boy dóor na. Boy Diop wala cokkaas na Boy Diop sànni waaye ñoom ñaar jàppante nanu Boy Diop la mooy sol ko sol na ko Boy Sol sol na Tapha Leer ëñ na ko bëgg na dugal tànk bi Tapha koy bot daan ko daan na ko daan na Boy Diop loolu mooy Boy Diop Tapha Leer daan na ko jël bu leer naañ. waaye gëj naa fay sama koy fay parce que Serigne Touba dina champion maa ngi gërëm ci mbóori chaque jour mi may yee sa xëri matin nu ma lay entraîné far force ma ne gannaaw xanaa may rey billaahi waaye kii di xale ba si